ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu boole ñu defal ñu jàmm fii ci àdduna defal ñu ko ci àllaaxira di ko ñaan moom borom bi subhanahu wa taala ñi nga xam ne ñoo fi bokkoon nekk ak ñun te ñu bari tey nekkatuñ fi ngir ne dañ fay jóge dañoo faatu yàlla leen yàlla jéggal yërëm leen xaara leen ajjana di ko ñaan moom borom bi subhanahu wa taala ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp di ay jaamam di dund yàlla na leen may ak wér suñu mag ñi nga xam ne ñoo fi nekk di ay jàmbaar yoo xam ne ñoo fi taxawal liggéey bi te ñu bari tey seen tële tàmbalee feeñ yàlla na sama borom subhaanahu wa taala kàttanal leen te bàyyi leen fi te may leen wér ku ci am jafe-jafe bët yàlla na ko yàlla leeral ku ci am jafe-jafe tànk yàlla na ko yàlla saafara ku ci am jafe-jafe lépp loo xam ne ci yaram bi la yàlla na ko yàlla woyefal te ba yàlla bàyyi leen suñu kanam yàlla mën na ko yàlla leen ko xubba bi tay dañ koy jëmale rek ci xubba gi nga xam ne moom la ko moom la suñu sëriñ tàmbali woon ajjuma bi weesu di imam Alioune Mbacké di li nga xam ne mooy fukki fan yi nga xam ne moom lañ tàmbali ci ñun tey am ñoo xam ne démb lañ ko tàmbali am na ñoo xam ne tey la seen première comme ñun ñi am na ñoo xam ne tey la seen deuxième jour ala kulli xaalin yàlla na yàlla nangu ñëpp kon suñu xubba gi dañ koy sof ci xubbaam gi nga xam ne moo wees woon rek suñu borom subhaanahu wa taala giñ na ci fajr fajr googi nag boroom xam-xam yi niñ ko waxee mooy fajar gi nga xam ne moo nekk ci diggante li nga xam mooy yow mu tawriya ak li nga xam ne mooy yow mu nashr di bisub juróom-ñeenteel bi ak bisub fukkeel bi wala yaalin ashr li ëpp ci boroom xam-xam yi nee nañ mooy fukki guddi yi nga xam ne moom nañ lañ dëgmal tàmbalee ko ci guddik biig gi ba la nga xam ne mooy guddik loj ga di guddik tabaski yàlla nañu ko yàlla fekkeloo mu nekk ay fan yoo xam ne fan yu am njariñ la bokk na ci li nga xam ne moom lañ jot a wax waxagum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul benn jëf bu ëpp solo ci ay bis nga jëfee ko ci bis yi nga xam ne mooy fukki fan yi tàmbalee ko bis bu jiitu ci weeru tabaski ba bisu fukkeel lépp loo xam ne jëf ju baax la ak ju mu mën di doon jëf ju baax ju mu mën di doon rek jëf yu baax yi bari nañ nga jëf ko ci waxtu wi rek moo gënal yàlla nga jëf ko ci beneen bis te bis bi gën ci bisi at ci ni ko lenn ci borom xam-xam yi waxee mu yow ma arafa nee nañu mooy euh, maanaam euh, ci yow ma arafa la ba tey ci fukki fan yi la bokk rek kon daal jëf bu baax boo xam ne yàlla da koo bëgg ci ay jaamam rek nga jëf ko ci bis bu mu mën di doon rek ci bisub tay bii euh, lay tàmbalee ba la nga xam ne mooy bisub fukkeel ba kon lépp loo xam ne lu baax la rek lu baax nag lu yaatu la mënees na ko cee def insha allahu taala loolu lépp nag di nga loo xam ne sama boroom moo ko baaxe ay jaamam ngir ñu man koo màng ba ëllëg mu nekk loo xam ne ñoom lay jariñ waaye yàlla moom amul lenn loo xam ne moom lay jariñ xattaa saraxe ab doomu tàndarma sax jërul xeeb xattaa nga dox wala nga jël sam téléphone xool mbokk moo xam ne dafa feebar nga nemmiku ko te yàlla tax jërul xeeb kon lépp loo xam ne lu baax la rek ci fan yii la gënee moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر mboolem bis yi amul bis bu gën a rëy fa yàlla wala bu gën a sopp lu fa yàlla wala lu gën a yàlla mu jëf ko ci bis yi lu ëpp solo bis yi nga xam ne mooy fukki fan yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne kon na ngeen ciy bari ngeen di tudd yàlla ndax tudd jaamu yàlla ci aw làmmiñ dafa bokk ci li gën a woyof ci xeeti jaamu yàlla moo tax rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam mention li nga xam ne mooy jaamu yàlla làmmiñ waaye loolu nag ëmbaale na mboolem li nga xam ne mooy xeeti jaamu yàlla yi kon làmmiñ ak jaamu yàlla lay def waaye jaamu yàlla yi nga xam ne tànk moo koy def wala yi ay yoxo di def wala yeneen di def yooyu yëpp mën nga ko cee boole kon daal na ngeen di baril mboolem li nga xam ne mooy xeeti jaamu yàlla yi bokk na ci jaamu yàlla yooyu nag mooy li ñuy wax tuub te ku nekk xam na ne euh, ñu mel na ñun ak yeneen ñu bari ay bàkkaar muur na leen ba géej ji lëndëm yi wër leen fu ne te jamono bu nekk nag ñuy soxla suñu borom xettali leen te sama borom moo ne yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah yéen ñi nga xam ne da ngeen a demoon ba daanaka ngeen xaw a ñàkk yaakaar ne yàlla da leen di mbugal waaye waaye ba leen naagu laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamian yàlla day jéggale mboolem li nga xam ne mooy bàkkaar yi sama borom tamit wax si wa ila allahi jamian suratu nuur ayyuhal mu'minuuna la'allakum tuflihun yéen ñëpp na ngeen maase àndandoo di tuub di dellu ci yàlla kon tuub lu war la beneen bi mooy fukki fan yii nga xam ne moom lañ tàmbali ñun ci tey ñëpp war nañoo yeesal amuk dogu te am détermination muy ak dogu boo xam ne dogoor bu dogu bu dëgg la dëgër la ci fexe ba bañ def benn benn ci xeetu bàkkaar yi te bàkkaar moom amul benn benn boo xam ne bu si bu mat a xeet la képp koo xam ne góorgóorlu nga rek ci jéem a gàttalu lu baax yàlla mooy xëcc lu baax lu baax ci boppam jàpp sa loxo ne la kaa ñu dem yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na walladina jaahadu fii naa ñi nga xam ne dañoo góorgóorlu ci suñu yoon la nahdiyannahum subulanaa ñoo leen di yombalal suñu yoon wa inna allaha la maa al muhsinin mboolem ñi nga xam ne dañoo bëgg lu rafet yàlla moom mi ngi ànd ak ñoom borom bi subhanahu wa taala niki noonu it bokk na ci yooyu yi nga xam ne mat naa bàyyi xel mboolem xeeti topp yàlla yépp rek mooy yi nga xam ne moom la yàlla defal jaam bi ngir mu sukkandiku ci mu nekk fas wi nga xam ne moom lay war ba mën a am ngërëmal borom bi subhaanahu wa taala dana ko may ak jege yàlla dana ko may ak sori saytaane dana ko may ak jege àjjana waaye dana ko may li nga xam ne mooy sori safara bu góorloo ci li nga xam ne mooy nga lépp loo xam ne euh, lu yàlla digle la di ko tudd ñu koy tuddee ak topp ci ñun kon beneen bi mooy fexe ba màng fukki fan yi bañ a xeeb dara ci lu baax ni ki nga xamee ne weeru koor gi noonu lañ ci doon soññee weeru koor gi fan weeri fan la waaye lii ceer bi la muy fukki fan fukki fan bëriwul bu bis bi dellusee rek daanaka mu daal di jeex kon war na ci kenn wala képp ku ko mën rek nga góorgóorlu ci lépp loo xam ne lu baax la bokk na ci yu baax yooyu tamit euh, maanaam fani tabaski gi nga jaamu ci yàlla profitoo jaamu yàlla ci ñi nga xam ne dañuy sàkku ndimbal ndax yàlla dogal na am nañ société bu metti nag société boo xam ne dëgg la ñàkk ga bari na fa waaye jikko yi it yàqu lool nit ñi ñu baree bari tàllal loxo gënal leen fañ fas xànc ak moroomam préféré laaj waaye tamit ñu baree bari it buñ mënoon a sabablu dañ nangoo sabablu ngir am nañ ku leen def waaye loolu lépp nag yow mi nga xam ne yàlla dénk na la suuf donte da ngay miiraas sa bopp donte mën nga ko ndax force wuñ la nga jël si lépp joxe ko ci yoonu yàlla nga joxe lépp ci yoonu yàlla baax na soo ko mënee ndax yonent bi sa alayhi wa sallam dafa wax ne lépp loo xam ne dees na ko jëf jëfe ko ci fan yi moo gën maanaam jëf ju baax ci fan yi lay gënee amul dara nag lu mbàyyi xattaa jihaad ci yoonu yàlla waaye daal ne lenn rek day la xam ne moom moo gën lépp ci beneen jamono bu dul jamono bi muy ko xamne dafa jël alalam yépp génn ak mom ak bakkanam te dara delu ci aussi dara delu si kon bu boba dañuy xamne jël alal def ko ci yoonu yàlla baxna waye nak day gënati comme ko mom mo gënon sax naka jekk kon day gënati nak ci fan yi ba taxna na mbokk yooyu nga xamne ne dañuy sàkku ndimbal te ñu bari nekk ci dëkk ba ku ci waaye man nga def ko rek ngir jëmmi borom bi subhanahu wa taala tey te xamne ne yàlla moom moo warlul aji joxe ji loo xam ne dana ko ko wottalee yàlla nee na wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lépp loo xam ne da ngeen koo jël joxe ko ci yoon yàlla moom moo leen koy wattalal wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah bu fekkee ne gisu leen ko ci àdduna it na leen wóor na yàlla moom denc na ko ci seen banque yi jëf fële nga xam ne fa lañ jëm ëllëg yowmal xiyaam kon ab jaam amul la dara lu muy joxe di ko ñàkk ab jaam kay li muy téye ci ay bànkam di ko wàññi loolu lay ñàkk waaye li muy joxe ci yoonu yàlla du ko ñàkk insha allahu taala bokk na ci ngëneel yi bokk na ci ngëneel yi nga xam ne ngëneeli bis bi mooy euh, euh, ñi nga ñi lii nga xam ne yàlla mi ngi ko jagleel ñi nga xam ne ñoo dem ca makkatal mukarrama euh, te ndeysaan ren yàlla dogal ñu bari ñu si am ngànt amoon yéenay dem màkka joxe xaj man mii ci laa bokk ak ñeneen ak ñeneen te am ngànt ba mënuñoo dem waaye loolu lépp di ay gàllankoor yoo xam ne dañ koy dugal rek ci nangu dogalu borom bi subhaanahu wa taala yàlla nee na amaana ngeen bëgg mbir fekk gënul ci yéen amaana ngeen bañ am mbir fekk loolee ngeen baj mooy li gën ci yéen kon nag ñu nag suñu mbokk yi nga xam ne ñoo bëggoon a dem dañu ami gàllankoor ñoo ñëpp ñu ngi koy delloo ci borom bi te bàyyee suñu bopp suñu borom xam ne bu ko neexee ci ñun rek dana ko dogal ci ñun te it euh, maanaam dund gi jeexagul incha allahu taala bokk na ci ngëneel yooyu yi euh, bisu tabaski ak li ci nekk imaam dana ci ñëw insha allahu taala ci xubba bi di ñëw bari na lool ay ngëneel ak nañ koy defee ak yi nga xam ne moo ci aju kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit nee na bokk na ci bis yi nga xam ne moo gën a rëy fa yàlla mooy bisu tabaski mooy bisu tabaski kon loolu it ngëneel la loo xam ne yàlla mi ngi ko denc ci lii nga xam ne moo di euh, fan yii nga xam ne moo di fukki fan yi niki noonu it ku ko ma nga nekk ca makkatal mukarrama ku aj ba noppi te mën a umra it nga joxe sa umra lool dara nekk ci tañu aji ñëpp yàlla leen ko yàlla nangu moo tax yonte bi sallallahu alayhi wasallam ne woon diggante umra ak moroomam diggante xa diggante umra ak moroomam maanaam yàlla daf siy baale mboolem xeeti bàkkaar yi moo tax ku ko man at bu jot it nga dem umra dara nekku ci waaye nag li nga xam ne mooy aj màkk goo xam ne yàlla nangu na ko amul genn pay bu dul àjjana amul genn pay bu dul àjjana ñi dem ñëpp yàlla na ko yàlla na ko niki noonu bokk na ci ngëneel yooyu yi nga xam ne moo nekk ci fan yi ku ko man nga woor mboolem yi nga xam ne yooy yooyu ëpp solo ñi koy wax ummahatul eh, al amali saaliha muy julli ak saraxe ak woor yooyu yëpp ak aj màkka dafa dajaloo ci fukki fan yi xam nga ne sa borom bëgg na ci ay jaamam ñuy woor bisub arafa ni mu bëggee ci ay jaamam yi nga xam ne ñoo aj màkka ñuy dajaloo muy def li nga xam ne mooy puukarewu ci biir ay malaakaam di leen wax naan xool leen sama jaam yi ni ñu ma déggalee ak ni ma toppee laaj leen li ngeen laaj ma def leen ñu tàmbalee ko ci bëccëg bi ba jant bi so lu ñu laaj yàlla jox leen donte seeni laaj dafa wute waaye noonu it ku nekk xam ne ne gisu juróom-ñeenteel bi ak bisu fukkeel bi bu ko man nga woor ko baax na moo tax àjjuma bii di ñëw Euh, tey la seen ñaareelu fan muy seen juróom-ñeent fan buñ ko mënee boole ko gaawu ga fukkeelu fan ba ñu woor ko baax na waaye ñi nga xam ne tey la seen première it ñu boole gaawu ga ak dibeer ja yëpp woor ko it baax na su ko defee incha allah euh, noonu la kon ndax juróom-ñetteelu fan bi si ñun àjjuma bi di ñëw la kon juróom-ñetteelu juróom-ñeenteelu fan ba gaaw la kon dimanche ak jàmm incha allah taala bii di ñëw bu dellusee ci day nekk si tabaski faawu ren ñaari tabaski dana am waaye yàlla na yàlla nangu ñëpp niki noonu it euh, bokk na ci naafile yi nga xam ne moom la def te bokk na ci li nga xam ne mooy julli tabaski waaye tamit saraxee ci yoonu yàlla lépp loo man ba ci xam ay mbokk yoo xam ne amuñu lu ñu tabaskee nga wutal leen njëgu xar wàññil leen coono bi wala participer sax wala ñoo xam ne amuñu lu ñu dal loolu yees nga jox leen te yàlla rek tax loolu lépp lu yaatu la aqulu الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف عباد الله موكي بوكنا تي جوفي أم صلاة يغا خامنا أبنا صلاة كم نينكا وخي تي فاني جلد تي أي نافلة واي جلد يبنا كي تيغن موي لي يالا فرطا تي أب جامو ناخ سان بروم موخ تي حديث القدس يني أمول لو أب صلاة تي سام أب جامو موي ساكو ديما كو جيغي لو صلاة تي موم ليغا خامنا موم لا فرطا تي موم su ko defee ba noppi nag li nga xam ne moom laa faratal ci moom muy danaa dem ba nekk ay bëtam di ko xoolee danaa dem ba nekk làmmiñam di ko waxee danaa dem sax ba nekk ay loxom di ko di ko di ko jàppee bokk na ci yu am njariñ yooyu comme ni nga ko waxee di wax li nga xam ne mooy takbiir yi xëy na imaam dana si ñëwaat waaye da ngay wax allahu akbar ñetti yoon wax laa ilaha illa allahu benn yoon wax wallahu akbar allahu akbar boobu ñaari yoon la waaye bu njëkk bi day ànd ak wa nga wax walillahi alhamdu مي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قوي وقت الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا نون لوكو توبي كيفان يب واي بيسو تابسكي لا كوم نون نيغا خامني نون لنجكوي جانغالي سامبرم سبحانه وتعالى وحدك القرآن الكريم نين جم يلا نعند جلسات على ديكو جوخي تيون برم بي سبحانه وتعالى لين خامن مام لا لين خي ولا تورسك نجك مي دك أبيس بو خامن بيس بو بجند أمو فجاي أمو ف تخاريتو أمو فت أمو كم من الدبلة كن تبوا با نين خامن تون كدي نيوم نيوي يفري يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا نعند دباس مما رزقناكم تلين لين مسل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه بلا بويدك أبيس بوخم نجم دجاي أمفا ولا خلة ولا شفاء كون جمعنا بي جمعنا لبوخم نباخنا لول تجوخي ما صد ما نقصت صدقة من مال يوند بس الله عز وجل نحن سرخ وانيول على الله سرخ وانيول على الله كون بوكي نعور غورلو بباخ باخ تي ليغا خم نه موي آه، جفيرا خم نه موم دني وقتالني waaye bokk na yu bari yu am solo yoo xam ne man na di bari comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngalee Cheikhul Khadim jàngalee ko te di ci soññee ci waxtu ne jàng alquran jàngale ko di jéggalu di def istixfaar fonk say waajur ak di rafetal ci ñoom di euh, seddal seen xol jokk sa mbokk jege ñaale yi di bari looy siiwal li nga xam ne mooy asalaamu aleykum maanaam jàmmoo nit ñëpp ak leen képp ko xam ne tane nga ko wala mu woo ko ak li nga xam ne mooy yéwénal diggante jaam yi ak li nga xam ne mooy digle lu baax tere safaan ba ak li nga xam ne mooy wattu làmmiñ ak wattu farj ak li nga xam ne mooy rafetal jëme ci dëkkandoo yi ak teral gan ak jawxe sa alal ci yoonu yàlla fekk doo xam ne nar na man naa lore ci aw yoon nga randal ko nga toppale ko doonte xottu banaana la sax boo xam ne ma nee sa seetar xiisu daanu ak timit jël sa alal jëmale ko ci sa njaboot yaatal ci sa njaboot fexe ba seen xol sedd wala say doom ak ñi nga xam ne ñooy jirim yi ñu bañ leen a fàtte ku wopp te nekk su hôpital yi ñu bañ koo fàtte jéem koo wuuti ci këram ci la nga xam ne tële na ko te xam ne loolee ko dal ñu ak li nga xam ne mooy faj aajoy mbokk yi ñi nga xam ne ñoo sës ci yow di say mbokki deret ak li nga xam ne mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bañ a naqaral benn jullit ak ñeewantal jëme ci ñi nga xam ne ñoom la la yàlla booleel ak tamit li nga xam ne mooy diggante mbokk yi xarit yi nga rafetal jëme ci ñoom ñaanal say waajur ñaanal say mbokk jullit ak li nga xam ne mooy delloo ak kóolute bañ a war kenn ak tamit baax jëme ci sa mbàjjan jëme ci sa baay tëx xettali koo xam ne ku loru la ak tamit sajj say xef bañ a xool naqari yàlla ak tamit di yorum njàpp jàng suuratul kahfi ci bisub àjjuma ak tamit dem si jumaa yi di julli yooyu yëpp bokk na yoo xam ne ci ñu sàkku la ci fan yi